waaw waaw je pense que taux bu baax la même bu dee Thiès peut-être xaw na faible par rapport ak euh, yeneen villes yi parce que d'après information yi ma am ñu ngi ci ay quatre-vingt quatre-vingt-cinq pour cent ailleurs mais nag bu ñu xoolee ni quand même réew mi nga xam ne moom ñoo gagné woon élection locale yi ci département yi ci département bi ba yoree conseil départemental bi ñoom dañoo boycotté mais malgré seen boycott bi am nañu quand même 66 pour cent de taux de participation je pense que enseignement politique bi ñu ci war a tiré mi même su bokkoon ci élection yi kon tey day perte. je pense que Idrissa loolu la xam moo tax mu ni vraiment jarul muy ñëw ci élection ndax quand même naam am na ay conseillers waaye genn wàll gépp laataa même ñuy wax affaire référendum sax dañoo quitté réew mi dem ci coalition présidentielle. ñu boole ci tamit ni aussi Thiès dafa nekkoon ville boo xam ne ak département boo xam ni candidature indépendante yi dañ fi bari woon lool donc je pense que genn wàllu candidature indépendante yëpp dañoo mujj ñëw. bokk ci liste coalition présidentielle pour may ko doole je pense que loolu ak taux de participation bi ñu am ndax quand même bu ñu xoolee même au plan national opposition bi nee na dafa boycotté mais terewul ni genn wàll lu ëpp ci presque cent pour cent conseillers même dans certaines régions génn nañu woote ji donc cela montre que ceux qui ont fait le choix jàppale la coalition du oui je pense que histoire jox na leen dëgg et cela montre que la coalition Benno moom moo ëpp majorité ci Sénégal fi mu toll voilà. waaw beneen euh, jàngat bi wax nga ko euh, élection bi euh, quand même am na particularité am. Mhm. bu bëri dañ doon wax ne peut-être coow li bëri woon na mais gis nañu conseil déplacé nañu en masse pour le reste lan la si Sénégal ay war a gën a jëriñ. moi je pense que au moins les conseillers ont montré que ñoom c'est des patriotes. parce que quand même bu dee trente presque trente mille conseillers maanaam vingt neuf mille conseillers ñoom ñoo bokkoon ci élection yi bu fekkee yegg nañu quatre vingt dix pour cent de participation au plan national day wane ni sénégalais yi ñu ñu faloon au moins élection lu mu métti métti métti ak lu ko nit ñi critiquer critiquer ñoom dañuy ñëw joxe seen carte parce que nit ñi mën nañ tëdd seen kër nelaw parce que conseils yooyu yëpp duñu ay conseillers Benno am na ci ay conseillers am na ci ay conseillers PDS am na ci ay conseillers yeneen parti yoo xam ne ànduñu ak ñun. mais bu ñooñu ñëpp bàyyee li ñuy def ñëw di woote si ci élection yoo xam ni xay na seen benn nawle rek la ñuy fal amul enjeu ci ñoom personnellement moi je veux dire que quand même sunu démocratie kon léegi am na doole. parce que ku nekk mënoon ngaa tëdd sa kër ni ah man comme faluñu ma dañuy fal diw naa ko bàyyi moom ak ay xaritam ñu dem woote ji mais gaa ñi defuñu loolu man ñi ñi nekk ci liste bi sax xawma leen. mais comme dama ni c'est une coalition présidentielle am nañu liste man ñoom laay wooteel parce que ñoom laa wooteeloon référendum donc loolu daal logique boobu pour man la ñu war a topp donc moi je pense que sénégalais yi nañu bàyyi di critiquer les hommes politiques parce que réew mi xëy na du réew mu développé du réew mu am koom mais am nañu loo xam ne même réew yu mag yi amuñu ko mooy démocratie mooy jàmm yaa ngi may dégg mooy yeneen. problème yoo xam ne ba ci France dañu am ay problème mu terroriste mais fii classe politique bi manqué nañu am une bonne politique sécuritaire ba yàlla mi ñuy dimbali ci lu bari ba léegi donc loolu buñ ko xeeb maintenant nag liggéey bi des na réew mi li desee dox bari na mais je pense que du ci benn fan lañ ko mën a régler je pense que lii ñuy def au conseil ñi ñu fal aussi bu ñu demee toog foofu nañu jéem a xool nan la ñuy def ba seen collectivité locale yi développé am ay projet jàppale maire yi état bi aussi dimbale collectivité locale yi maire yi aussi bi parce que parfois même dafay am problème yu bari yoo xam ne dafay am ci réew mi ñu naan état état mais xam nga sunu mbedd yi ni mu salte soxlawul état kooku bu maire yi mobiliser woo nettoyer ko mën naa ne donc am na ci projet yu bari yoo xam ni nit ñi bu ñu mànkoowee toog def ay coalition man jàppale naa waa réew mi ba ñu defar ñaari terrain gazonné pourtant bokk ma ak ñoom benn askan je pense que ñoom ñu ngi def liggéey bu baax donc je pense que c'est pas parce que Massamba ou Mademba faluñu la que pour man loolu je pense que c'est pas c'est pas